président wu réseau Abdou Dello euh, nekk sama wetu euh, Mame Kor Ndiaye di directeur réseau bi ñu ñëw fi Touba ngir lancer première unité wu agence Abdou Dello bu ñu ne unité nag mooy am na yeneen yu ñuy xaar moment bi may wax ni Géejawaay Mbacké Pikine Mbambilor Kër Massar Sagata Guet ak HLM ñoom ñëpp pare nañ pour am mutuelle waaye dama ne leen Touba la ñu tàmbalee ndax lu tax choix Touba Touba waxuma la jigéen ñi fi nekk ni ñuy ñemee liggéey te amul ay usine daanaka ku ci nekk jënd ak jaay rek ngay def mais dañu am problème accès financement dañu am problème mu am xaalis pour liggéey léegi na am na am ay tontine ci koñ yi mais tontin yi souvent modernul ñu ne léegi dañuy ñëw nag tontine yooyu ñu suqali ko développé mu nekk moderne te mutuelle mooy tontine bu moderne mutuelle mooy mini banque léegi nag bii ne nan la war a fonctionner jëlewuñu ab xaalis feneen ñëw di ko séddale nit ñi déedéet loolu dana amee ca kanam mais pour le moment su jigéen ñoo ñu la ñu ñuy organiser ñuy leblante seen biir premier dépense nag Abdou Dello mën na ko jël en charge mais ko xas ba jënd livret épargne dix mille francs bu ngeen nekkee cent cinquante jigéen loolu un million cinq cent mille la ñun duñ ko laal de dañ koy bàyyi foofu waaye dañ ne boo jëndee réseau boo jëndee livret épargne tey dix mille francs des fa denc xaalis bu la neexee jël des fa denc xaalis bu la neexee jël yaa ko moom waaye nag bala ngaa leb dana am ñaari weer. soo soxlaa ñu lebal la million aussi il faut nga am fa deux cent mille muy cinquième boo fa amee deux cent mille épargne lu tolloog ñaari euro lu manqué tuuti nga soxla un million ñu lebal la un million comme téye nañ sa deux bu ñu la joxee un million kon huit cent mille lañ la lebal léegi huit cent mille nga indi ko ci huit mois weer wu nekk cent mille franc xam nga kon tegoo ci dara ndax duñ duñ ci teg intérêt ndax intérêt riba la waaye nag dossier bi ngay signé pour leb nag da nga koy jënd mën nga ko jënd cinquante mill wala cent mille wala cent quinze mille wala vingt cinq mille la nga koy jëndee loolu la ñuy dajale ngir mutuelle bi mën a fonctionner ca la ñu fay ñu liggéey ca la ñu fay courant bi ca la ñu internet bi ca la ñu fay téléphone fa la ñu fay ndox fa la ñu fay location noonu la mutuelle bi fonctionner waaye luñ la lebal la ñu la lebal nga indiwaat te fu ñu ubbi mutuelle dañ koy tuddee kilifa diine ga nekk ca koñ ma ñëpp gën koo xam ngir population ba fa dëkk jàpp ne mbir mi seen mbir la du mbir diw du mbir diw du mbir diw ba seen mbir la ñoom ñëpp ca koñ ba moo tax bii bi njëkk ubbi ñu ngi ko tuddee sëñ Modou Fadiama Niang te ku nekk xam na lim doon fii ci Touba ci Kër Niang usine comme Dakar Touba bëriwul ak napp jegewul géej comme Mbuur ak yeneen dëkk yi Touba jigéen ñi fi nekk dañuy xëy di jënd ka jaay waaye nag dañu am problème pour am xaalis jënd ka jaay ñu ne nag dañ leen fekk ca lañ daan yaxanal ak tontine yi naan def ca koñ ba ñëw jàppale leen ci mutuelle yi te itam ñoom ci seen biir ñi yore mutuelle bi ñoom ñoo koy gérer de ñun dañuy yore ca kaw rek wutal leen agrément wutal leen financement extérieur mais xaalis bi ñoom ñoo koy dajale ñoo koy leblewaat seen biir waaye nag bala nga faa leb doo doo ubbi tey rek leb suba da nga fay def ab diir épargne fa mais xaalis ni xaalis mel ci activité commercial noonu la deret mel ci yàpp ci yaramu doomu aadama sans xaalis activité commerciale amul léegi nag ñu ne nañ accompagner ci xaalis bi ñu épargner ñun dañu ñëw accompagner leen pour première dépense ñun ñoo ko jël en charge dañu leen koy lebal waaye bu mu tel xasee ba lancé ñun dañu leen di seetaan dañu leen orienté dañu leen accompagner danañ former caissières yi dañu leen defar ay séminaire pour ñu mën a gérer seen xaalisu bopp léegi nag am na agrément bi génn na pour ñu am minimum cent mutuelles ci Sénégal mais dañoo tàmbalee Touba tàmbalee Touba nag dañ cey séentu barke te wóor nañ ko ci am ndax sëñ tubaa am na mutuelle yoo xam ne état mi ngi leen di jàppale ci ay fon mais ñun en dehors épargne ñi ko séq ñu dajale épargne di ko leble seen biir am nañu ay partenaires yu nekk Dubaay yoo xam ne nii une heure ci ginnaaw rek woon ma di échanger ak man même image envoyé naa leen ko ba ñu gis ko ñoom pare nañ pour yëkkati xaalis boo xam ne bu ñëwee comme ñun am nañ agrément état bi jox nañu agrément xaalis bi nu mën toll nañ ko jël ñu defal ñu ko taux d'intérêt boo xam ne nii ñun dañ leen koy fayaat waaye buñ ko jël dañ ko suñu poste dañ ko jox jigéen ñi liggéey ci Touba la ñuy tàmbale teg ca Mbour teg ca Daaru Musi teg ca Sagata teg ak fu nekk ci Sénégal incha allahu rabbi waaw am nañ ci nii ni eh, dina jàppale jigéen Touba mutuelle bi ndax boo gisee ñun jigéen ñi ñu créé woon mutuelle bi dañu am côté boo xam dañ ci sonn ci finance ndax eh, bari na lu ñuy utiliser ci wàllu finance ndax bañ na ko ba fi mu ne kuy def politique sax ci finance la lay jaare te bari na ci financement yooyu xam dañ koy topp ba du mujj fenn fi lañ dajaloo nag ñun jigéen ñi am xalaatu la temps ñuy demati ci benn benn kii li ñu bëgg mooy dajale li nga xamante ni ñun moom lañu am créer suñu mutuelle bopp di fa denc suñuy fukk ak suñuy juróom bu ëllëgee lu mu mën di doon ñun ñu mën koo yoral suñu bopp di lañ gisante ak suñu partenaire ak monsieur Makone Ndiaye ak monsieur Alla ci lañ ñu compagner nag ba ñu egsi fii eh, doon def tey jii nag intégration bi te yaakaar nañ ni ak fi ñu toll nii am nañ yaakaar ci ni mutuelle bi liñ ci yaakaar dinañ ko ci am muy finance yi ñu soxla ak jàppale jigéen ñi ci li nga xam moom lañ am ñun ci projet boo xam dañ ko doon topp muy crédit mutuel bi ñu am di ab delloo bu sëñ Modou Fadiama Niang xanaa li ma ciy dolli rek soo ñu jigéen ñi di wax ni liñ doon wuti fu nekk ñu diñu ci nax dañ ko amal suñu bopp tey moomal ko suñu bopp fas yéene ko jàpp nag ak suñuy loxo ndax yaakaar naa ni sonn nañ ci topp nañ ko fu nekk dem nañ fa ngir am suñu yëfi bopp yàlla may ñu ko ñu compagnie yu it ba ñu am agrément ndax man nga am xaalis te du tax nga am agrément ndax agrément rek mooy li jafe ndax yàgg nañ ko di topp waaye tey lañu ko ay yàlla dogal dañ leen yàgg nax ci financement waaw yàgg nañu nax nag ci financement moom parce que loolu moom dama koy wax ci kaw daal mutuelle bi ñëw na ci wax waaw looloo waral nag ñu dem créer suñu mutuelle lu bopp fas yéene nag liggéey ak suñu bopp li ñu yor dañ ko bëgg a dencal daal suñu bopp fas yéene di ci liggéey moomal ko suñu bopp.